Ibra Fall Ndiaye muy le préfet du département de Dagana D'ici si euh, le sous-préfet de Ndiaye mooy madame Diamanka madame Sen. D'ici si chef de service yi fi nekk ñëpp ñi nga xamante ne ay jigéen lañ te yàlla def ñu ñafe ba fi ñu aussi chef de délégation Saïd, bu nekk fii si madame Ndoye di si teg ñi nga xam ne ñoo fi teew ñoom ñëpp mënuma te euh, rombe du marom du ma romb euh, le maire de la commune de Rosbecho Béthio elage Falisek, Hadj Seck moom mi nga xamante ne xëy na yàggagu fi mais gàcce ngàllaama ndax gis nañu tank yi mu taxawu jigen ñi dañ ne cin bala neex xey bu xeeñee rek dinañ ko dégg te wax deug yalla ñu ngi suivre actualité locale mais xam nañ ne njort nañ ne amna programme bu reuy bo xamné mu ngi koy défal jigéen ñi té défé naané lu ci kanam rawu li bët euh, di ci teg les adjointes au maire muy délégation bi nga xamante ne moo représenté monsieur le maire muy ajaratu Ndeye Gaye première adjointe au maire ak euh, sama yaay ajaratu Juma Faye muy troisième adjointe au maire Euh, ànd ak commission santé présidente commission santé muy Ajaratu Aminta Niass ànd ak euh, présidente euh, commission féminine muy sama xarit sama chéri Adja Dieye ngeen tàccul ma ko nag bu baax a baax a baax a baax Adja Mbëgge Yàdd moom mi nga xam ne ñoom ñooy ñun ñooy liggéey fii ci SEDAF bi muy sama yaay di sama xarit su ma limee ñooñu nag daxa naa daxa ñaalaani si jigéen ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew nekk ay femme leader foog naa ne dinañ si ñëw si kanam euh, tey nag li ñu fi dajale tey mooy waxtaan ci li nga xamante ne mooy jigéen en général waxtaan ci thème yi nga xam mom moom lañ soulever muy thème international am nañu thème boo xam ne Sénégal moom la ñuy waxtaanee am tamit thème ba nga xamante ne mooy seen sous-thème Moy le leadership féminin euh, dafa melni rek ren au niveau international dañu ne euh, jigéen l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable bo xolé sen soutem bi xawna ci lal bu baax a baax a baax a baax guddi yu duñ ci mën xous développer mais dañuy jall rek ba ñëw ci li nga xamantene mom moy sen soutem ñu gën ci xuus bu baax a baax waxtaan ni ci euh, bu ñu xoolee égalité bi nag ah dafa xaw a doy waar dañu jàpp ne jigéen ak góor xëy na yemalewuñ leen buñ joxee jigéen góor fukk ñu ngiy jox jigéen euh, juróom te loolu nekk na la nga xam te inégalité inégalité la te war nañ ko corriger bu baax a baax a baax a baax a baax journée bi nag ah Aline wax na ko léegi ci historique bi duma ci xuus bu baax a baax

ci politique ci euh, développement ci économique ak ci social loolu n'ak muy la nga xamantene ne dañ ko yag a mo waral ñuy organiser journée 8 mars pour chaque année ñu xol xex bobu fan la toll fan lañ ci toll yan djégo la ñu ndax ñu mën avancer ci yenen ya nga xamantene mom moy liñu li pour plan d'action d'année en année ah xam nañu ne nak Covid bi jaar na fi metti na lool muy crise ba nga xamante ne wax naa ko keroog euh, laal na kër yi laal na panier de la ménagère mais aussi buñ xoxoolee jigéen ñi la gën a laal ndax ki doon jaay pouvoir d'achat am day wàññeeku boo génnee fii ci mbedd mi jigéen ñi ngay gis ñii ñu ngi jaay caaf ñi ñu ngi jaay cere ñii ñu ngi am seen entreprise xëy na doole ji ñu am amuñu ko ba nga xamante ne feebar bi nga xam ne moo nekk ci àddina bi ba tey dafa tax ba nga xam ne jigéen ñaa ngi ci kër yi li ñu war a am amatuñ ko ñi war a dugal alal dugalatuñ ku nekk yaa ngi toog sa dëkk dara doxul te defe naa bu dara doxul ci àddina jigéen ñi ñoo ciy gën a ñoo ciy gën a souffrir euh, loolu nag tax ah, ba at bi ñu ne nañu fexe ba jigéen ñi ñu am pexe yu ñu teg ba ñu mën a am loo xam ne daañ ko yóbbu ci seen kër yi muy ay catastrophe yu ñuy yëg muy en tout cas li ñuy wax changement climatique muy li nga xamante ne war nañ ko am te amuñu ko ñu fexe ñu am ko loolu nag ah defe naa ne euh, au niveau national moo tax ñu yëkkati thème mu ren bi ñu ne euh, les femmes agents de changement pour l'adaptation climatique la réduction des risques environnementaux et des catastrophes jigéen ñi dañu bëgg ñu participer bu baax a baax a sen loxo ci lépp la nga xamante moy euh problème adina bi te ku ne xam boy booy li ñuy wax changement climatique ñu ngi koy yegg bu baax bu ñu toogee xool saison yi taw mi dafay wàññeeku bu ñu xoolee xool tàngaay bi ni muy demee ah xëy na ku xamoon waalo xam ka léegi ku dem siin fa ma dëkk gis suuf si ni mu mel ni ñuy béyee saison yi gàtt taw mi tawatul normal yenn xeetu animaux yi ñu ngi disparaître de plus en plus boo béyee li nga waroon a am doo ko am nga xam ne vraiment changement climatique euh, euh, mu ngi sonal nit ñi bu baax a baax a baax a baax climat bi changé na euh, heure bi mu war a sedd day gudd bu tàngee dañuy yëg tàngaay gu méttee méttee méttee métti loolu nag nekk na la nga xamante ne ah xëy na dañu ne laal na góor ñi mais aussi laal na jigéen ñi bu baax a baax ndax jigéen ñaa ngi béy ci tool yi jigéen ñaa ngi def yeneen activité ya nga xamante ne en temps normal dañuy yëg souffrance bu baax a baax a baax a baax bu inondation amee toolu jigéen ñi daf koy laal te wax naa ko sànq pexe yi góor ñi am pour mën euh, génne seen bopp ci yooyu inondation xëy na jigéen ñi amuñu ko bu tawee seen tool yi inonde bu ñu amul ndimbal day metti duñu góob duñu am lu ñu yóbbu ci kër yi bu euh, bu ñu béyee matériel gi ñu war a am bu ñu indee matériel jox jox góor ñi bàyyi ñu day metti suuf si ku ne xam na ne accès à la terre nekk na un problème partout euh, bu ñu waree jox góor ñi fii boog boo seetloo lii part bi jigéen góor ñi am ci suuf si xëy na jigéen ñi amuñu ko euh, boo ñëwee par exemple euh, Sine boo xoolee ni ñuy ni ñuy béy rek nga xam ne jigéen ñi néewal nañ leen doole bu baax a baax a baax ci accès à la terre mooy suuf si nga xam ne ñoom war nañ cee mën béy génnee ci dara ay lopin lañ leen di jox wala ñu ne leen jël leen dugub bi ngeen dugal ci seen ñebbe wala seen euh, kii ngeen mën a am am dara te loolu vraiment nekk na la nga xamante ne day doy waar. Euh, beneen bi aussi muy euh, boo waxee adaptation xëy na ci changement climatique di nga ne atténuation li ñuy wax les émissions de gaz à effet de serre sonal na nit ñi bu baax a baax moo waral ngeen di gis climat bi ni muy changé xëy fi fii en Afrique au Sénégal wu fi trop trop mais bo demee Dakar l'air est tellement pollué tougal seeni auto auto électrique sonatuñu sen mbalit lañuy jël indil ñu ay auto gasoil essence muy polluer air bi nek la nga xamantene de façon

am nañu ko respecté mais am na aussi ñoo xamante ne respecté wuñu parité boobu ah euh, ñun nag ay jigéen lañu dañoo war a jóg taxaw temm xam ne li ñu war ci àddina bi bare na. conseil municipal bi nga xamante ni teew na tey ci jotaay bi di nuyu soxna Marlène di directeur SEDAF di nuyu bépp présidente GPF wala réseau la fédération jigéen yi fi teew tey di nuyu imam yeeg nitu diine yi nga xamante ni commune de am mbégte ak contentement bu a dernière célébration 8 mars Fabeg bu Ross Béthio defoon ko ak bépp jigéen bu nga xamante ni moo nekkoon ci commune de Ross Béthio kon nag dafa jot tey ñu gëm sunu bopp dëggal sunu bopp xam ni fii lu fi baax ñu na ñuy wax ni capacité bi mi ngi fi xam-xam bi mi ngi fi mën-mën bi mi ngi fi mais nan ko fésal comme ni ko soxna mat leen waxee ñëwuñu pour di yeesalaat lu bees dañ fi fekkoon ay jàmbaar ñu nekk sunuy waajur ñuy xool ci seen tànk di taataan ci seeni xet kon bu yàlla defee tey ñu ñëw jiitu di jigéenu commune Ross Béthio kon dañuy teg sunu tànk fi ñu teg seen tànk buñ fi jógee sunuy rakk wala sunuy doom yekkale may wax ni bépp jigéen bi nga xamante ni yaa ngi ci population Ross Béthio comme ni ñu ko waxee ñun dañ ñu jiital rek mais du jaagay nu dañ ñu jiital ñoo ko moom yéen ñi nga xamante ni yéen ñu jiital yéen ñu yilif yéen ñu mën a wax def leen ñu def yéen ñu mën a wax taxaw leen ñu taxaw te nag dañu bëgg dem te pour ñu yegg fi ñu jëm nag il faut ngeen bëmax ñu madame la maire ñu di la yóbbante rek si monsieur le maire xam nañ engagement wam xam nañ pas-pasam xam nañ détermination mais dafa jot nag ñu jàppale jigéen ñi bu baax a baax. jërëjëf ñuy wax ni rek Covid bi jaar na fi am na lu bare loo xamante ni Covid bi fi jaaroon mën na ni am na lu bare loo xamante ni yàqu na ndax ay jigéen jàmbaar fi ne. ñu xam li nu bëgg da ngay seet boo yeewoo cinq heures du matin ngay dugg ci dëkk bi gis jigéen ñi kenn ku ci nekk ŋàbb boolam jëm marché ñi jëm tool yi mais ñuy wax ni rek ñu bëgg la ñu jàppale jigéen ñi ci financement ñu mën a continuer seen activité génératrice de revenu ak nag tegandaay bu oyof a oyof ak un taux d'intérêt boo xamante ni dina leen permettre ñu mën a def seen activité yooyu ñu wax ni itam ñu jéem a jàppale jigéen ñi comme niñ ko waxee kuréel yaa ngi fi ñu jéem leen jàppale formaliser kuréel yooyu jàppale leen ci ay formation yoo xamante ni day formel comme ni ko soxna mat leen waxee mu am suivi ndax amul formation bu jigéen ñi deful mais kenn ku si nekk boo ko defee boo demee sa kër nga ranger ko sa tiroir loolu amul njëriñ li soxna mat leen wax jor na nag fu jigéen taxaw si national wala international jigéenu Ross Béthio yi bokk si ndax am nañ fi ay femmes exemplaires bu nu waxee waalo dañuy wax jigéenu ndeer bu nu ñëwee Ross Béthio dañ fiy fekk ay jigéen yu jàmbaar tey si suba rek dañu def pose première pierre si xaar yàlla sunu yaay xaddaaru aan def fa geste bu noble boo xamante ni li ñuy wax ni jigéen xolam dafa rëy dafa yaatu mu mën yëkkati si alalam maye terrain yëkkati 4 millions jàppale ko si diine kon loolu jàmbaar rek ko mën ñuy wax ni am na ñeneen ñu nekk si biir dëkk bi am na ay femmes exemplaires ak modèles ba pare nag ñu yore ay ndombal tànk yore ay responsabilité ci biir commune bi bu maire amee sasi madame la maire amee sasi ndax kenn du wax développement ci biir Ross Béthio di ko wax ci département Dagana te kenn du ñu wax ni ñu jàppale jigéen ñi itam ci biir kër yi ndax ku wax jigéen wax xale ñu gis ni petite enfance bi ñoom it sooxe na torop ñuy wax ni surtout état civil lu xale yi ñu jàpp si ba benn xale dootul judd te du am këyitu judd ñuy wax ni euh, centre SEDAF bi nga xamante ni dañ koy dañ fi nekk te ñu bari bëgg ko ci département bi Ross Béthio bénéficier bëgg mu le maire mu équipe SEDAF ba nga xamante ni jigéen bu jóg boo ñëwee mën fi mën a sa activité ndax fii mooy këru jigéen ñi kon ñun ñoo ko mën a soqali ñun ñoo mën a fexe ba SEDAF bu dund mën naa ni soxna leen wax na doléance yëpp te am na loo xamante ni itam daan ko partagé ak madame la maire incha allah buñ fi jógee rek dañuy jàll si liggéey ndax monsieur le maire bi ñu dem campagne ak Covid bi ci jàlloon mayoon na jigéen ñi di millions bi mu ñëwee itam ba installé maire am dafa ti yëkkati waat 10 millions ni moo ko jagleel jigéen ñi mu nekk ay investissement yoo xamante ni day am solo ci biir quartier yi jigéen ñi di ci bénéficier wu di ci mën a yëngutu di ci mën a jëriñu di dimbali seen bopp di dimbali seen njaboot kon may wax ni maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ni buñ fi dellu si waatee déwén ñu ñaan képp koo xamante ni yaa ngi si bi rek ñu ànd ko feete ko ak yow di wax alhamdulilahi rabil alamin di ñaanal samay waajur yi dawul tey mën naa ne sax nekkuma ndax tey dama xëy rek sama xew dem sama yaay ndax nekkoon na koo xamante ni dafa ma jege woon lool te bëgg ma ba tax na activité bu may def dafay mel na moom moo koy def kon maa ngi koy ñaanal fu mu tëdd yàlla na sunu borom yeesal yërmande si moom ak sama waajur bu góor ak sama ñaari mag yu ko tëdd ak bépp nekk jur bi ko tëdd jërëjëf merci merci Adja jërëjëf ñu teelale rek ci ki nga xam ni tey moo fi teewal monsieur le maire commencé nañ ci bisimilahi rahmaani rahim ba alhamdulilah ñoo ngi bëgg a eggale ci alhamdulilah rabbil alamin gannaaw ba ma santee yàlla julli ci Muhammad di sant sama ñaari waajur maa ngi jël kàddu gi ci turu monsieur le maire Faly Seck daaj du ministère des collectivités territoriales wax gi sax mën naa ñàkk waaye ku la yónni soo demee si ay njabootam nga war a joxe yóbbante bi nga xam ni moom la leen yóbbante maa ngi nuyu directrice su SEDAF di nuyu madame la maire Adja Juma Faye di nuyu suñu maire

ba commune di am en 72 ba tey mësuleen dégg benn jigéen bu am responsabilité bu day na responsabilité bii mu def te mënoon na sax bañ respecté parité bi ndax am na commune yu mel na moom te respecté wuñu parité waaye comme moom dafa jàng nekk cadre am xam-xam toog fa ñuy décider kon lu réew mi décider wote ka da koy respecté loolu moo tax ngeen am ñaari meer meer yi nag si jëmm tur yi la waaye yéen jigéen ñi yéen yéenay maire yi ndax cër bi seen cëra kon yéen a moom maire yi mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant mi ngi seen kanam mi ngi seen gannaaw mu bañ ba boo demee sa mairie ba

ma nga commencé sa jigéen bi nga jox ko cëram nga assister ko nga former ka nga informer ka nga fiital ka ba mu mën jël ay engagement te yaakaar monsieur le maire Faly loolu la def jël commission bu nga xam ni soo ko xoolee day nekk ñeenti commission ba juróomi commission mu tànn jigéen si biir jigéen ñi nekk sa commune ba jox ko responsabilité bi muy Adja Soxna Jéey taxaw di sama do di ka ñaanal yalla yal na réussir yan bi te pour mu réussir nak amna lu Adja mbëgge wax ñun ñoy simé ko anda nek ben di yëkkandoo di ndo di tegandoo ñu bañ def ben disparité si ñi ñofi nek ñun bokkuñu dama ni képp kuy réseau képp kuy groupement féminin képp kuy GIE wax dëgg yàlla si nga bokk ñu jël baat boobu nag dénk ko pour ngeen taxawu ko jàppale ko orienté ko ànd ak moom ba ñu changé jafe-jafe yi jigéen ñi di jàmbat kon cër bi cëru jigéen ñi la ñu yokkaat ko si adjointe yi nga xam ni def nañu ko monsieur le maire na xamal leen ni leen moom dafa ñëw pour jàppale dëkk bi waaye ñëwul pour jàppoo dëkk bi yaakaar naa réalisation yi mu nas yéen ñëpp dégg ngeen ko ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla jàppale jàppale conseil municipal bépp jàppale dëkk bi yëpp ak dëkk yi ko wër jàppale commune bi ak commune yi ko wër ba ñu am résultat ndax nag sa sam rek du commune Ross Béthio yàlla daf ko sase nag mu nekk sa bunt ba nga xam ni